léegi nag pour ñu xam ne moom day jaxase te li muy wax xamu ci dara daf ne eh, maanaam baatu alfana ak at tawxiid yooyu ñi ngi ci jublu waxdatul wujud loola du benn dëgg loola du benn dëgg moom moo ci jublu loolu moom na wax ne loolu laa ci jublu man waaye bu mu wax ne mutasawifa yi daf leen di leen sosal naan mutasawifa yi loolu lañ jublu ci wax waxdatul wujud ak yu mel noonu loola ay caaxaan la lii nag Omar mbay mënu koo laay mënu ci xam moo xamu aslan xamu ci dara sax ci li moom dafay dafay liir rek waxaala nee na nangam ak nangam loolu amul njariñ li am njariñ mooy nga saxal li mu bëgg a saxal moom te te mu tële ci ci biir téere bi yow nga ñëw saxal loolu nga ñëw saxal ne mutasawifa yi ci boppam ñoom ñoo wax ne alfanaaw ci boppam maanaam ci wàllu wax waxdatu wujud lay dugg te moom borom téere bi de mooy taqdisul asxaas ci téerim bi mi ngi ci dox doxinu ñeneen ñoo xam ne ñu sànku lañ ci wàllu e, ci ci ci wàllu bind ñoo xam ne daanaka seen yitte yépp mooy def ay caaxaan wax loo xam ne dara amu ci ci wàllu tasawuf mën nañ ci indi ay namaasi ay ñennat ci ay nit ñoo xam ne maanaam waxuma jàpp ne diw ak diw diw ñoom dañ doon woote wahdatu wujud waaye dañ ne mutasawwifa yépp wahdatu wujud lañ doon woote moom borom téere bi nag moom tamit loolu la loolu la saxal ci téere bi ndax amul kenn kum ci bàyyi dana indi Junayd wax ci moom wax ci tawxiid ba mu doon wax te moom nee na yooyu yëpp maanaam fanaa ak tawxiid ak jamu alfarqu maam yooyu yëpp ci wax waxdatu wujud lay bawoo kon maanaam waxdatu wujud kay ñëpp ko gëm moo tax léeg-léeg mu indil la tabaqaatu shaaraani ne la diw ba mu doon wax naa nangam kon diw moomu ci wax waxdatu wujud la bokk Junayd ci ñu doon woote wax datu wujud la bokk eh, eh, ak keneen ak keneen ak keneen maanaam ñim ci tudd ñépp xamal ne taqal na leen ci waxdatul wujud loolu nag doxalinu ñenn la ci bindkat yi nga xam ne ñoom daanaka ay nit ñu tekkiwul dara lañ ñooñu lay ti ci ni ñu bindee waaye ña mbir yi dëgg-dëgg buñ ne xulul xalaaj lañ ci lañ ciy song buñ ne ittihaad ibnul farid lañ ci song buñ ne waxdatul wujud ibnu arabi al xaatimi lañ ci song yii moo am ay tilimsaani ay ay ibnu sabiin yu mel noonu sahrawardi borom awaariful maarif mais munoo boole mutasawufa yëpp nga dugal leen ci benn kàmb ne Junayd nee na nangam te loolu nangam buñ ko seetee seen tawhid jooju ñuy wax noonu ci wahdatu wujud lay bawoo loolu borom taqdisu asxaas moo ko fi moo ko fi def moo ko njëkk def ci senegal cest à am na ñu mu topp moom e, te ñooña danañ indi ñenn ci ca ñoom te moom day sukkandiku ca ñooña bokk na ca borom alkashfu an xaqiqati suufiya li awwali maratin fi te loolu ay fen la maanaam awwalu marra fi taarix ngay kashf xaqiqatu suufiya loolu du dëgg kon jëfi ibnu taymiya jim doon def ak ibnul qayim xeex bi ndor doon xeex yëpp ñoom lam yakshifu baadu an xaqiqati tasawuf kon ndax moom borom téere boobu dafa dem sax ba ba attaqué di attaqué ibnu taymiya ne moom xamul woon xamul woon xaqiqatu aqwalil junayd bastaami yooyu nga xam ne junayd ibnu taymiya daf leen a daf leen a daf leen a tagg daf leen a yëkkati ñooñu la borom téere boobu dafa ñëw dal ci seen kaw daal ne nag Ibnu Taymiya dafa comprendre sax lu ñuy di wax ñoom moo tax muy rafetal njort ci ñoom affaire yooyu nangam ak nangam. Eh, taqrir asxaas tamit lool lool loolu la indi maanaam mi ngi attaqué Junayd di ko taqal ci wahdatul wujud loolu mooy wane ne Ibnu Taymiya fa mu tegoon Junayd ak Bastaami ak yu mel noonu yow jàpp nga de Ibnu Taymiya ci boppam dafa comprendre mbir yi. Eh, borom al-kashf an xaqiqati suufiya yamul ci loolu yamul ci. Eh, di di di tuumaal te mooy Mahmoud Abdurra eh, Abdurraouf Alqasim yemul ci dal ci kaw Ibnu Taymiya rek waaye dafa dal ci Abu Nuaym al Asbahaani borom xilya eh, ci li nga xam ne moom moom la doon moom la doon def moom la bindi ci xilyatul awliya borom téere boobu nag maanaam kooku ay caaxaan kese la doon def ci téere bi boole ay wax même ña nga xam ne dañoo rafetaloon seenu njort ci tasawuf dafa ñëw dal ci seen kaw bokk na ca ña def loola tanbihul gabi ila takfiril arabi ibn arabi ka ko taxqiq ka mooy abdurahman al wakil mi ñu doon wax mooy sëriñu ahmed lool ci biir téere bi ñooñ ñëpp mooy ñi nga xam ne dañuy boole tasawuf yépp ne dañuy woote waxdatu wujud boroom kashf an xaqiqati suufiya da koy def bokk na ci itam ki nga xam ne moo taxqiq tanbihul gabi ila takfir ibni arabi te mooy abdurahman al wakil bokk na ca ka taxqiq kitaab qutril wali bu shawkaani ka ko taxqiq mooy ibrahim ibrahim hilal bokk na ca tamit ña def loola kashfu an xaqiqati kashfu xaqiqati suufiya mooy mooy mooy waajooj ñu doon wax doonu cest di ñu mel nii ni ñu doxee ci tasawuf te mooy boole ñépp ci benn kàmb noonu la Ahmed Lo doon doon kii te ñii li ñu def salafi yu ni ci seen bopp d'accorduñ ci indi woon nañ keroog albani li mu wax ci Abdourahman al Wakil ak téeréem boobu euh, ak na mu ca doxee Eh, rafetal gi ibnu taymiya doon def ak di rafet njort ci ñenn ñeeg di nangam ak nangam ak nangam yooyu daf leen ci fekkul ñoom dañoo boole ñëpp ay junay dëkk ay ay abu yazid al meek ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne fonkoon nañ leen ca gannaaw ñoom dañuy ñëw yi ñëpp ne ñëpp benn tawxid lañu gëm te mooy wax waxdatu wujud xalaas amul leneen loolu nag loolu aw fen la eh, léegi nag pour wane ne li muy wax ci alfana ne day dellu ci waxdatul wujud loola wone ne loola du am wax jooju wérul mooy dañuy dellu ci madaariju saalikiin bi ma wàcce ni bu ibnu tay ibnul qayim al jawziya eh, madaariju saalikiin bayna manazili iyaaka naabudu wa iyaaka nastain nga xam ne eh, diraasa wa taxqiq yu mujjee génn mooy bi ma wàccee nii Euh, boo delloo ci téere boobu ci li nga xam ne moom mooy page yu trois mille six cinquante neuf nga xam ne moom mooy baabul fanaa yaani manzilatul fanaa ibnul qayim ci boppam ibnul qayim ci boppam maanaam lii ñuy wax ci waxdatu wujud li ñuy wax léegi jële ko ci téere bi loolu lay saxal ci biir li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy moom téere boobu waaw euh, moom mooy moom mooy firi waxi waa ji waxi abu ismail alharawi mi nga xam ne moom moo taalifoon manazilu saairin ibnul qayim ñëw di ko chara ci téeréem boobu mu tuddee madaariju saalikin foofa lay foofa lay eh, waxee ne maanaam euh, mutasawifa yi li ñu jublu ci alfana li ñu jublu ci alfana mooy mooy ذهاب القلب وخروجه من هذا العالم وتعلقه بالعلي الكبير الذي له البقاء فلا, يدر فلا يدركه الفناء ومن فني في محبته وطاعته وإرادة وجهه أوصله هذا الفناء إلى منزلة البقاء yaa dégg fanaa mooy xol bu génn ci àdduna bii ñu nekk nii maanaam jokkuwul ci dara ci yii waaye mi ngi jokk ci yàlla mi nga xam ne mooy ku tedd ku màgg ki ku mag ki ki nga xam ne moom képp moo amuk sax te ak jeex du ko dab te mooy yàlla képp koo xam ne dangaa jeex tàkk nag ci bëgg ko ak topp ko ak nam rekk moom yàlla subhaanahu wa taala jëmmam ja nee na sa fanaaw googu nga fanaawu ci leneen lu dul yàlla moo lay yóbbu nag ci manzilul baqaa ci nga àgg ci des nag mu ne kon fal fanaau alladi yutarjamu alayhi huwa gaayatu taalluqi wa nihaayatuhu jokk fa mën a yem ci jokk ci yàlla loolu mooy fanaa fa innahu inqitaaun amma siwa rabbi min kulli wajhin mu ne mooy nga dag dagg guumi jokk ci leneen lu dul yàlla ci bépp anam bu manti doon loolu mooy fanaa mu ne alfa mu ne walidalika qaala alfanaau min hada albaab duuna alxaqi ilman summa jaxdan summa xaqan mu ne mooy eh, nga Euh, nga nga dagg lépp loo xam ne dafa dul yàlla subhaanahu wa taala nga xam ne yàlla kese kese kese kese mooy sa jubluwaay mooy sa lépp maam yëgoo leneen waxoo leneen jëmoo ci leneen maam danga dagg lépp loo xam ne mu du yàlla nga jublu yàlla kese min kulli wajhin léegi nañ xool li nga xam ne moom la Ibnul Qayyim wax ci madaariju saalikin fii ci man manzilatul fanaa ak li nga xam ne moom la ñu doon lire léegi ci téere bi ci wàllu waxdatul wujud ba xam mal farqu baynahuma lan moo leen tàqale ñaari wax yooyu ibnul qayim def ne alfanaau diddul baqa qultu maanaam ibnul qayim mooy wax mu ne alfanaau diddul baqa wal baaqi imma باق بنفسه من غير حاجة إلى من يبقيه بل بقاؤه من لوازم نفسه وهو الله سبحانه وتعالى mu ne alfana suñ ko waxee mooy contreeru u mu ne albaaqi ki des nag te yàlla mooy aji des gi waaw imma baaqin bi nafsihi yàlla moom dafay des des ci boppam maanaam kenn desalu ko moom yàlla sukkandikuwul ci keneen pour des eh, min geyri xaajatin ila man yubqihi soxlawul ku koy desloo waaye desam gi moom yàlla mi ngi aju ci boppam te kooku yàlla kese moom mu am loolu wa amma siwaahu ku dul yàlla nag fa baqaauhu ak desam bi ibqaai rabbi taala lahu ci desalu yàlla yàlla ci boppam moom moo ko fi bàyyi wa laysa lahu min nafsihi baqaa moom mënul am ak baqaa goo xam ne mi ngi ko jële ci boppam loolu mënul nekk kama anna lahu kama annahu laysa lahu min nafsihi wujud naka nga xamee ne moom jaam boobu amul ci boppam ak wujud amu ko ci boppam fa ijaaduhu wa ibqaauhu min rabbihi wa xaaliqihi amam gi ak desam gi lépp mu ngi bawoo ci yàlla mi nga xam ne mooy aji sàkk gi wujud amu ko amul baqaa doomu aadama bi wujud amu ko amul baqaa maanaam amul wujudam goo xam ne ci boppam la bawoo amul Euh, li nga xam ne moom mooy baqaa goo xam ne ci boppam la bawoo lépp mi ngi bawoo ci yàlla yàlla nag wujudam ak baqaawam bawul ci dara wa illaa fa huwa laysa lahu min nafsihi illa al mu ne jaam bi amul dara dara lu jóge ci boppam lu dul adam ak ñàkk leneen lu dul adam nag ci yàlla la bawoo jaam bi adam la yàlla moom moo ko branché pour mu am wujud pour mu pour mu nekk shay mawjud yàlla moom mooy ki ko fi desal tamit moom desalu fi boppam amalu fi boppam desalu fi boppam kon moom ci boppam amul wujudu boppam amul baqaawu boppam waaye lépp mi ngi jóge ci yàlla rek lii mooy liñ doon saxal sànq ci waxdatul wujud ibnul qayim ne jaam bi li jóge ci boppam ak aadam képp la qabla ijaadihi la jiitu ñu koy amal aadam la adam mo bawo ci bopam gannaaw bañu ko amalé fana mo am ci bopam manam la ko fi dessal la ko fi bàyyi lépp yàlla la kon jambi amul baqa amul fana mune nak walaysa al ma'na anna nafsuhu wa dhatuhu iqtadat adamahu wa fanaa وإنما المعنى أنك إذا نظرت إلى ذاته بقطع النظر عن إيجاد موجده له كان معدوما mu ne jaam bi nag du caagee dañ ne jaam bi moom eh, maanaam adam la wala fa faani la wala yu mel noon déedéet dañ ne maanaa ji mooy soo xoolee ci jëmmi bi te xooloo ci ka ko amal jaam bi dafay nekk maadum ci saasi wa ida nadarta ilayhi bacda wujudihi maca qatci nadari an ibqaa'i muujidihi lahu istaxaala baqaa'uhu mu ne su fekkee ne danga xool jaam bi gannaaw bi mu amee nga xool ko te xooloo desalu ka nga xam ne moom moo ko amal nee na ci saasi dootul mën a nekk loo xam ne day am baqa fa innama fa innahu innama yabqa bi ibqaihi jaam bi mi ngi des ci desalug yàlla kama annahu innama yuujadu bi ijaadihi naka noonu nga xamee ne mënul am lu dul ci amalug yàlla noonet mënul des lu dul ci desalug yàlla kon ki ko fi desal ak di ko amal mooy yàlla subhaanahu wa waaye moom moom nga xam ne am na ba noppi amam gi ci yàlla kese kese kese la bawoo bawoowul ci leneen maanaam benn wujud moo am muy yàlla subhaanahu wa taala loolu mooy lii muy saxal ci fanaa moom lañ doon saxal ci waxdatul wujud léegi nii mu ne fa hada maana qawlina innahu innahu nafsuhu maadumun wa faanin loolu lañ jublu ci bu ñu waxee ne jaam bi amul wala jaam bi lu lu seey la lu jeex la moo di ne suñu xoolee ca ci moom jëmmi jëmmi jaam bi rek nga xam ne xooluñu ci amal gi ko yàlla amal day gis ne jaam bi ci boppam mënul amal boppam aadam la ndax bu ñu xoolee ci lu jóge ci boppam rek jaam bi adam ak fana kese moo jóge ci boppam adam mooy laata ñu koy amal fana mooy gannaaw bi ñu ko amalee la ko fi ijaat ak la koy ibqa ci yàlla kese kese lay bokk euh, bi ibnu taymiya di ibnul qayim di firi alfana ismun lidmihlaali ma duna alxaqi ilman te mooy waxu waxu mu koy firi nag مدارج سالكين من يعني يضمحل عن القلب والشهود علما وإن لم يفترض وإن لم يفرض ذاته فانية في الحال مضمحلة فتغيب صور الموجودات في شهود العبد بحيث كأنها دخلت في العدم كما كانت قبل أن توجد ويبقى الحق تعالى ذو الجلال وحده في قلب المشاهد كما كان وحده قبل إيجاد العوالم مني نمي في ري وقت جي مودني هراوي دفني موي لب لدول يالا داتي سي جسا كنم لون موي فنا مني داي سي جي خول بي أكي تيولوك جامبي جي خمم دون تسخ دو دوغو نه yi nga xam ne moom euh, maanaam li nga xam ne mooy jëmmam moo dem ba seey waaye lépp li nga xam ne mooy su warul mawjudaat yi am ci teewlu jaam bi ci boppam daf dul amati maam daf dul teewlu leneen lu dul yàlla day mel ne yeneen yi dul yàlla yépp daf ko dellowaat ca aadam ga nga xam ne ñoom loola ca la nekkoon laata yàlla di ko bind mu taxawal yàlla rek rek rek rek mu nekk ci xolub ki nga xam ne moom mooy ki koy teewlu te mooy jaam bi comme ni nga xam ne yàlla noonu kese la fi nekke woon laata dara di am laata dara di am yàlla kese moom moo fi nekkoon léegi nag bi bi yàlla amalee yépp jaam bi nag dafay mel ne dafay delluwaat bu defee ci man manzilatul fanaa dafay mel ne dafay delluwaat ci ne yàlla kese kese moo fi am comme ni fi amee nga xam ne yeneen yi am ci diggante bi yëpp daf koo delloowaat ca na mu nekke woon ca adam loolu mooy fanaa loolu nag suñ ko taxawalee yàlla kese la ñuy taxawal fépp fu ñu taxawalee yàlla kese nag Ahmed Lo day jàpp ne loolu mooy dañoo jàpp ne yàlla kese moo am yeneen yi amuñu nangam déedéet teewlu jaam bi ak xolam la muy teewlu yàlla kese la yeneen yi am yëpp daf koy delloo ca adam Ibnul Qayyim loolu la wax ci madaariju saalikin Eh, ibnul qayim nag saxal li nga xam ne moom la Ahmed Lo di bañ te mooy saxal ne benn wujud kese moo am te mooy yàlla subhanahu wa lool loolu nan la ko saxalee dafa wax ne dafay firi wax waxu harawi ja mutasawif booba la mu waxoon loolu lay firi nag ci ju saalikiin ngir wone ne jambi, bi dafa am ay darajaat yu ko yalla di jaarale du day teub rek daal di sédé ne yalla am yalla yalla mom lañu wara jam nangam nangam tawhidati mat nga daati nga daati ki nangam ak nangam wax ji jeex dedet jam bi dafa yéeg di bari yu muy jang yu ko yalla di won ba ca darñel mbir ye ya nak mi ngi dooree ci xam kullu ma'budin siwa al karim batil gep jaamu guñu ñu leneen jaamu ludul amut لولو تي بوبام مانام لو sànku انه يعني لا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع غيره وأنه لا يستحق أن يعبد بنهاية الخضوع والحب سواه وكل معبود سوى وجهه الكريم باطل لول موي توحيد العلم لم وخون علما لغي مودس جحدا ثم حقا يوي نك اي ترقيه لا yu la jaam yéegee nag ba nga àgg ci manzilatul fanaa nag kon manzilatul fanaa mi ngi tàmbalee ci xam xam ne yàlla kese moom moo moom mooy ki kiy lore moom mooy ki ki kiy jariñ moom mooy kiy joxe moom mooy ki kiy amal moom mooy ki kiy ñàkkal moom mooy ki ki kiy rey kiy dundal e, yooyu ci foofu lay fanaan ak ci yeneen yi ñuy jaamu yu dul yàlla yépp nga teg ko nele nga xam ne yooyu yépp caaxaan la يالا داف لي ييغي سي بنين دارجه نك ثم اذا رقاه الحق سبحانه درجه اخرى درجه اخرى غوغو فوق هذه بوبا نك فلن لن مو فاي ام اشهده عود المفعولات الى افعاله وعود افعاله الى اسمائه وصفاته وقيام صفاته بذاته فيضمحل شهود غيره من قلبه وجحد an yakuna li siwaahu min nafsihi shay'un ilbatta walam walam wujud wujuda siwa kama tajxaduhu almalaaxida fa inna hada aljuxuuda aynu lilxaad mu ne jaam bi bu paree ci gëm googu nga xam ne ci la Ahmed Lo toll mooy gëm ne yàlla mooy lor moom mooy jariñ mooy mooy mooy wërsëgal mooy nangam yooyu noonu nga xam ne mooy tawxiid gi nga xam ne moom la ñun ñëpp ci lañ ki yàlla daf koy yéege beneen daraja mooy mu gis jëf yépp yi ñuy def yépp dafay delluwaat ci jëfi yàlla subhaanahu wa ay jëfam moom yàlla dafay delluwaat ci asmaul asmauhu wa sifaatuhu sifaatam yi day delluwaat ci saatam nga xam ne lépp boo ko toppee ci moom kese lay teere su boobaa lépp lu dul yàlla nag ci xolu jaam bi dafay disparaître cest à dafay mel ne amul dafa dem ba jaam bi dafa contourner leneen lu dul yàlla mi ngi fi loolu mooy jax dan giñ doon wax donte sax nag amuk ñeneen ñi moom moom contre ko maanaam leneen lu lu yàlla amul loolu waxu ko wujudu siwa alfanaaw an wujudu siwa ñoom duñ ko def ñoom mutasawifa fay loolu ñen ñoo koy def malaaxida yi malaaxida yi amma fay yi yoo gëm ne yow danga am yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan moo naan yonent bi xeyru mawjud amul wala nangam maam dañoo saxal ne mawjudaat yi moom yépp yu am la waaye yonent bee keneen ak ku manti doon bi wujudillaahi la taxawee ci amuk yàlla kon benn wujud kese moo fi am waaye siwaa leneen lu dul yàlla nag ku am la lu am lañ waaye seen wujud mi ngi bawoo ci wujudu yàlla waaw gëm ne nag yàlla yàlla amut li am mooy dangay boole lépp loola door a nekk yàlla loolu malaaxide yi ñoom ñoo ko gëm te ñooñu la ibnu taymiya doon wax sànq ñooñu la ibnu qayim di wax fii lii sax am na martaba bu ko gën a kawe moo ne summa ida raqaahu darajatan thalitha darajatan uxra lan la ko yàlla di won mu ne ashhadahu qiyaama alawaalimi kulliha jawahiraha wa aradaha zawatiha wa sifatiha bihi waxdahu lépp mi ngi taxawee ci yàlla bi iqaamatihi lahaa wa imsaakihi lahaa yàlla moo leen téye yàlla moo leen taxawal yàlla moo téye asamaan si ak suuf si yépp seenu am ci yàlla la taxawee géej gi yàlla moom moo moom moo ko téye ba noonu mu mel noonu mu mel ko wa yumsiku samaa an taqaa ala al ardi picc yi naaw ci jaww ji yàlla moo leen téye saafaatin wa yaqbidna ما يمسكهن إلا الرحمن آه. يا لموتى دندو باي مي باتا ديل باغا خامني موم لا نيوارا فاتو يالا موتي ليپ ويمسك على الموجودات وجودها ولولا ذلك لضم حلت وتلاشت والكل قائم بافعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته فليس الوجود الحقيقي illa lahu lii mooy waxdatu wujud fa laysa al wujudu al xaqiqiyu illa lahu wujud xaqiqi moom yàlla kese la ñeel ibnul qayim ne aani al wujud alladi huwa yastagni fiihi an siwaahu loolu yàlla kese moo ko am maanaam existence boo xam ne soxlawoo keneen di la exister maanaam di la di la def ngay exister yàlla nag moom existence am wujudam moom amul ci leneen lu mu jóge loolu mooy xani wa kullu ma siwaahu faqirun ilayhi bizat laa qiyaama lahu bi nafsihi tarfata ayn amul lenn lu dul yàlla loo xam ne mën naa taxaw te taxaweem gi bawoo ci boppam amul lenn lépp ci yàlla lay taxawee yàlla nag moo taxawee ci boppam lii mooy wax waxdatul wujud bi nga xam ne moom la moom la mutasawwifa yi di wax léegi nag su ko defee e, fanaawu gii mu doon wax naan fanaawu dafay jokkook nangam nangam yooyu ay caaxaan la dara wéru ci dara du ci dëgg e, léegi nag mu des benn baat te mooy xam nga waxoon na ne am na baat yoo xam ne ñoog wax datu wujud ñooyam lu ci mel ne fanaa te loolu wane nañ ne fanaaw ak li mi li bokkuñu maanaam ibnul qayim mi nga xam ne mooy sëriñu gaa yi te xam tasawuf moom ab ab ab taarib magistère la daanaka xamul dara ci mbir yi Euh, du moom mooy àtte mbir yi kon duñ delloo ci ibnu taymiya mu fonk lool junayd fonk abu yazid bastaami fonk ñeneen ak ñeneen ñeneen eh, ahmed loo ñëw di leen tuutal ci téere bi dañuy xam ne moom ci boppam moo xamul dara ci li muy def rek waaw eh, su fekkee ne dañu ne alfanaaw mooy nangam ak moom mu ñëw naan fanaaw mooy wahdatu wujud wala mooy gëm lépp yàlla la ak daagam nangam xam ne moom moo xamul dara ci li muy wax waaye lii la ibnul qayyim wax lii la ibnu bi wax téere yaa ngi nii nañ ko liir nañ dellu ci madaariju saalikiin manzilatul fanaa ñu xam lan la ibnul qayim di saxal foofu ak lan la wax ak lan la firee waxi mutasawifa yi ak gëm ne maanaam siège bi ak nit ki ak bàyyi ma yi ngay boole pour mu nekk yàlla loolu ñan ñoo ko wax est ce que mutasawifa ñu wax loolu képp ku wax loolu mooy gëmoo ne yàlla lu am la danga gëm ne lépp ngay boole égal yàlla loolu nag amul benn jullit bu koy wax waxuma la ak mutasawifa loolu malaaxida yeeg zanaatiqa yi ñoom ñoo ko wax loolu ibnu qayyim wax loolu la ibnu taymiya wax eh, mu dellu nag wax ci wàllu al uh, at tawxid at tawxid mooy nangam ak nangam yooyu mu wax yëpp ay caaxaan la ndax lan ndax su delloo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy mutasawifa yi seen seen uh, baat yi ñuy firee fana doo ko ca fekk doo ko ci fekk lii mu bëgg a wax moom soo delloo ci mutasawif yi liñ liñ firee kalimatu tawxid doo ca fekk li bëgg a wax ne ibaratun an waxdatil wujud loolu ay caaxaan la dara amu ci waaw soo demee ci istilahaatu suufiya am na at tawxid at tawxid daf ko séddale ay xaaj suuratuhu fi l bidayat suuratuhu fi l abwaab suuratuhu fi l muamalat nangam nangam سورته في البدايات مو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر أحد فوف الأحمد لو تول متصيفا دي دمك دانك دانك تصديق الجنان بهذا المعنى لولو ميجي تكرم آه. آه. بحيث لا يخالجه شك ولا شبهة ولا حيرة غدور يجنك العمل بالأركان المبني على اليقين الوجداني وإسقاط الأسباب بحيث لا نزاع فيه للحق ولا تعلق فيه بالشواهد ولا يرى صاحبه صاحبه لغير الله تأثيرا ولا فعلا ددم نونو غاي ديمي نك با جيسنا نك ليپ لي ام اك لي تخاو اك إيه، سينوك ام اك ليپ داغا تي داغا مام داغا تي فناو جيخ جيخ تاك nga xam ne lépp da koy delloowaat ca nam meloon ca adam delloo maanaam nga taxawal yàlla ca nam meloon ca laata muy amal yooyu mu amal foofu nag foofu la ñu tuddee alfanaau nag an rusumi sifaat fi lxadrati alwaxidiya wa shuhudi alxaqi bi asmaihi wa sifaatihi la gayr ak yeneen ak yeneen kon boo demee ci xaqaa'iqu maanaam istilahaatu suufiya bu qaashaani doo fa fekk lii muy wax nii ar risaala al qushayriya am na bunt boo xam ne baabu tawxid la tudd nañ fa dellu ñu xam lan la ñuy wax ci tafsir bëgguñu bëgguñoo guddal mbir mi al luma bu assiraaji tuusi am na buntam boo xam ne baabu tawxid wa sifatul muwaxid wa xaqiqatuhu wa kalaamuhum fi maana dalika nañ fa dellu ñu xam ba xam dara fa gis loo xam ne dafay nduroog waxdatu wujud at taaruf li madhabi ahli tasawuf am na bunt yoo xam ne mi ngi ko wax ci kalaamuhum fi tawxid nañ fa dellu ñu comparé loolu ñuy wax yépp ñu xam ne Ahmed loolu li muy wax dara daf cee amul. léegi mu des benn point boo xam ne nag moom la ñu mujjee mooy caaxaan yi nga xam ne moom la Ahmed Lo nekkee ci téereem boobu noonu cest à képp koo xam ne da ngaa wax dara rek waaw Chaaraan yi nee na Junayd di nee na xawma lan tasawuf bu ko li ñu suñ tawxid bi buñ ko xamal ñëpp ndax suñ ko nangamee na léegi ci sukkandiku ci loolu nag pour wane ne ñoom kon la ñuy làq wala la ñuy nàngam loolu mooy wax waxdatu wujud loolu ay caaxaan la rek waaw nuuru diinil morsafi nee na abdullah aba abdirahman aba abdullahi al qurashi eh, bañ ko laajee mu ne eh, bu am na ñoo ne bu buñ fi nekkee du wax ak du nàngam ak yooyu yëpp du dara xam nga saxlawul dara ci mbir mi maanaam la ñuy làq comme waxuñu ko rek mënoo ci xam dara baatub tawxiid ci boppam nan lañ ko fiiree da ngay dellu ci seen mustalahaat boo ko delloo da nga xam ne dara bokk jéeg li ngay wax yow waaw ndax Junayd mii ngay taqal nii te Ibnu Taymiya ñemewul woon loolu Junayd bañ ko laajee lan mooy tawxiid daf ne ifraadul qidami anil xudus est-ce que loolu mooy wahdatu wujud ak yeneen ak yeneen mënoon naa ci lim lu bare bare bare seen taarifaat boo demee ci risaala al Qushayriya baabu tawxiid nga liir lépp li ñu wax ci tawxiid est-ce que da fa gis lenn luy wax wahdatu wujud mënut a nekk. waaw ah. eh, nga dellu ci allumaa ci baabu tawxid nga liir la wax ci tawxid ifraadul muwaxidi bi بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته بأنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد بنفي الأضداد والأنداد والأشباه وما عبد من دونه بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل إلها واحدا فردا ليس مثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لولا موي لولا جنيد كوخ جنيد مو وخان آه، التوحيد موي معنى معنى لا مو تضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم ويكون الله سبحانه وتعالى كما لم يزل كنن وحنا لنن ما نم ذنون المصري وحنا نكون خبرني عن التوحيد من ما هو من هو أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج وصنعته للأشياء بلا علاج وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه وليس في السماوات العلا والأراضين السفلى مدبر غير الله ومهما تصور وهمك فالله بخلاف ذلك أكيد يعني يعني دم رك doo fa gis lenn ci li Ahmed loo di wax de da ngay sonn rek waaw ak tawxiid mooy waxdatul wujud wala moom lañ ci namm eh, ak lu tax ñu mujjeel ko yooyu yëpp da nga ciy xamul dara rek da ngay dem nga jàngi tasawuf mooy lan ak yu mel noonu eh, amma li mu wax ne maanaam la tax ñu koy làq moo di ne ñoom dañoo kiiwut yonent bi moo wax ci saxiixul Buxaari yi ne ñu jëlee ko ci Ali dama juum maanaam Ali ibn Abi Talib moo wax ci saxiix Buxaari mawquufan xaddisu naasa bi maa yaarifuun أتحبون أن يكذب الله ورسوله ابن مسعود في صحيح مسلم وخنا ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة نتك بنكو وخي لو كلام أغوش لولا منكو جور الفتنة لولا نك ورا وارا لب لو خنا دفع لنت تخلو نيني بنين كو وخ بنين لولا أنا لن موش آه. أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم ak yeneen ak yeneen kon jéemi naan lañuy la ñuy làq noona naa nga yooyu ay caaxaan lool loolu du waxi dara xamal lañ bëgg nga saxal ne mutasa yu fa yi nee nañ waxdatul wujud mooy nangam ak nangam amma nag boole mutasawifa yépp ci benn kàmb ne ñëpp dañuy woote waxdatul wujud moom kese moom moo ko fi def ak ñennet ci ay bindkat ñoo xam ne ñoom lay roy ci loolu te ñooñ ñëpp nag boo leen boole seen wax ji yëpp ca mbaleen ma la والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته